maaleykum asalaamaaleykum mbokki bi yëpp mbokki waa at yëpp mbokki murit yëpp Baay Faal yëpp tey ñu ngi ci bis bu tedd bi sëñ bi woote muy 12h Zikroulahi ñu nekk ci ñëpp a ngi ci ñu am taw nag tase ak suñu kilifa sëriñ Amadou Ndaw ah kon ndongo sëñ <laughs> tey loo yëg ci bis bi. xanaa santaat yàlla bu baax tey di mm, mm, mm. moom daal gannaaw liggéey wan nañu ne. Hmm. moom ci ëllu xasida la bokk. waaw waaye wan nañu ne ak bayfal la. Hmm. waaw hmm. man maanaam ak bayfalam moom. saa su ne da koy gën dëgg. leer na naññ. ci ci col gi. waaye ak ci jëfin bi. wax dëgg yàlla kon nag. noo ngi koy doole ñaanal. barke maam Cheikh Ibrahima Fall moom. amiin amiin amiin amiin. mën naa Am a baax. sëñ Amirou bi daal mat naa gën a soññ nit ñi ci moom. ci ci nit ñi ñu yeewu ci sëñ Muntaxa. waaw waaw maam damaa damaa gis démb bërëbu sëñ euh, Cheikh Assoufal bi. Mhm. moom sëñ Basirou. Mhm. xam nga magam la. sëñ Cheikh Astou Fall ñu ngi ko tuddee Cheikh Ahmadou Bamba waaye moom sax soxna Astou Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall mooy waajuram waaye sëñ bi ni mu defaraatee bërëbam bi ba ubbil ko buntu fee ca ca ci armée la nga xamante ni fonk gi mu fonk sëñ Cheikh Astou Fall ndax li mu bokk ci sëñ Tuubaa ak maam Cheikh Ibrahima daal mi ngi noonu <laughs> maanaam maanaam maanaam moom daal sëñ Muntaxa daal Murid Saalix la Murid Saalix waaw moo nga moo nga moo jeexal wax waaw bu ñu bëggee jàmm. waaw lam ñu waxoon rek. waaw dañuy xool fa mu xool. te di ko déglu. waaw te te moytandiku ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay tardé. incha allah incha allah incha allah daal dañu fexe ba di di di di ko bàyyi xel. te di ko déglu. waaw ndax sëñ bi waxoon nañu waxoon nañu ñu dégg ne naw ma naw ma kenn ci sëñ Tuubaa. waaw waaw loolu nag. lu mot a bàyyi xel la. waaw léegi léegi alxames bi di ñëw daa mel ni. waaw waaw bis boobu mag dégg de. sëñ bi waaw jërëjëf le treize juillet. waaw waaw mooy. à Touba incha allah. incha allah moom moom <laughs>